naan léegi la justice des vainqueurs la justice des vainqueurs euh, bu ñu ko comprendre xëy na mooy ñi nga xam ne ñoo yor pouvoir wala ñiy exercer euh, di ko defee ni ñu ko bëggee loolu laa lay wax voilà avec Macky Sall ngay dénoncer mais avec Macky ce que je dénonce aujourd'hui mais li ma bëgg wax mooy tey jii nii ñi nga xam ne ñoom ngay jàppale ils ont promis euh, des choses bu ñu bu ñu faloo ëllëg est-ce que tam duñ dem ci loolu ils ont promis des choses mais xam mois je sais que ils ont un programme mhm. qui permet aujourd'hui de libérer les Sénégalais de libérer les les les comment dire les fonctionnaires sénégalais de libérer l'administration xam nga li ma la l'administration est prise en otage oui xam nga man je l'ai toujours dit xam nga tey dañoo bëgg a nit ñi libre mais les gens ne peuvent pas être libres parce que bu fekkee ne yow sa chef bi ku lay diriger. Mhm. texte yu lay tënk kooku dafa am un intérêt politique mais kooku mënoo si mënoo si moom dara tu es obligé que def li mu parce que boo ko deful ñu dàq la aujourd'hui euh, moi j'en suis un exemple il beaucoup d'exemples mm-hmm. ñoom ñëpp dañ leen dàq tey Ousmane Sonko boo gisee mu egg fu mu egg nii c'est parce qu'il a eu à écrire des choses à dénoncer des de manière légale ñu dàq ko si